ginnaaw bu ñu leen nuyoo daleen jàmm ci ñuy topp si d'information bii di Thiowli Sénégal dañu koy ubbeek xibaaru bëccëg gi wàllu people ki nga xamante ni nag mooy coowal Sidi Diop Wally bu Seck mu mel ne ba léegi jeexagul ndax nag Ami Collé bi nekk fële ci Sénégal 7 ak nga xamante ni moom mooy Adji Mass yéen nañ ci yàbbi dinañ ci ñëw laataa loolu Aba ba mu posé question ba ki nga xamante ni moom mooy El Hadj Keita jëm ci coowal Sidi Diop Wally Ballago Seck moom dañuy je m'en mêle pas xam nga rek El ak ay tubaabam El Hadj ak doojam waaneem nee na yoonam nekku ci ki yoonam nekk nag ci mbir mi du kenn ku dul Adji ak Ami Collé seen émission topp kaa fële ca wa fële ca Euh, fi nga xamante ni mooy Sénégal set ñëwaat nañ ca mbir ma nee nañ njàpp warul bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Sidi Diop njàpp dafa war a continuer di jàpp ki nga xamante ni mooy Sidi Diop ndax Sidi Diop euh, papay njàpp moo jël bàyyi njàpp moo jël Sidi Diop daal di koy teg ca loxoom ni ko dénk naa la sama doom ji kon njàpp ak nu mënti demee dafa war a toog ñoom jàpp nañ ñi daal njàpp bu demee ca Wally ko sekk ñoom xeetu wor la ñu ko jàppee njàpp ba léegi yéeyul yàbbi jëm ca mbir ma naam ñu baree ña ngay wax ni jóge na ca Sidi Diop en tout cas njàpp waxul Sidi Diop tamit nangu see yëy yàbb yi Sidi ba léegi ci kàddoom ba ñu ko posé question jëm ci digganteem ak Omaro daanaka dimanche bii moom la mu ci tontu leer na mooy nee na awma jotom kan la amul jotom comme noonu waaye booy bàyyi démb la amul jotom ren en tout cas mi ngi noonu buusee këccëb mer ba futtu wala sax daal di mer ba futtu gaar waale comme ni ma ko waxee démb waale baala ko sekk ni ñëwoon sa centre commercial dañ leen a fay Boucher mu mel ne bàyyeegul waale ci ay gaar waale jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Keba Seck euh, fële nga xamante ni mooy diwaanu Europe di ko sinap naan ko yow war a woo nekk fara euh, fara maanaam da ko doon wax na ko fara Diouf nga war a nekk wala fara Ndour Keba bi nga xamante ni ca faramaaneen la bokk Keba Seck bi nga xamante ni euh, bàyyi la ci wàlli balago Seck moom lay wax naan ko Diouf nga waroon a sant aw la Ndour mu mel ne kon faramaaneen bi nag ah déet ma ngi koy gaariwaale moom Boucher muy Waly ko seek ba léegi tontuwul benn yoon bu ñu fa jógee ñu dem ci wàllu politique daane na ko waxtaan bi ni xam ngeen ni nag ki nga xamante ni mooy Ayib Daffé démb ba demee ca DGE dañu ko daal di gàntal tey mu xëy ànd ak Clédor Ly comme na ma ko defoon démb dem ci CDC moom tamit ñu gantal ko fa jamono jii ma wax yéen ma nga fa nga xamante ni mooy ministère de l'intérieur fa lay dem wutale ngir kalaame fa mbir ma am lu leen ment lool ba léegi ñu leen seen fichier de parrainage bi ci le 26 moom la dépôt yi di jeex yam mardi bu ñu fa jógee dañuy dem ci maam jaara Fam maam Diarra Fam ci vote budget yi yéy na yàbbi jëm ci kaawu Karim Wade xaalis ba ñu koy laaj ni dafa war a génnee lu toll ci téeméer rek téeméer rek 138 milliards maanaam téeméer rek fanweer ak juróom ñetti lu toll ci milliards la ñuy laaj ki nga xamante ni moom mooy Karim Wade moom nee na jàpp mbiru fiscal boobu loolu Karim nag du loolu moom moo koy teree ñëw Sénégal dina ñëw déposer candidature ànd ak ñëpp liggéey ngir yootu réew mi Karim ba léegi ba démb ba sànq ñu ngi koy xaar ba léegi kenn gisu ko. Furaas daal xëddéem xëddeem dafay nax boppam comme na ko wax waxkat ba waxee woon ni ku jaaxaan di tuur ndox balaa kenn lóor yaay njëkk lóor wooyu leen di abonné ci site d'information bi di coow li Sénégal coow li Sénégal dara du leen rëcc ci réew mi Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.